اللهم صل على سيدنا محمد نبي الرحمة وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه والسنة بسنته إلى يوم الدين الحمد لله نيجي سانت يالا bu baax julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jëm ci mboolee mi jullit ñi jëm ci mboolee mi taalibe yi yi nga xam ne ñu ngi aju ci xadarat Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ci ndigalal alxalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass ñu ngi nuyu ñëpp di yëgle rek euh, décision bi nga xam ne moom la sëriñ bi jël ci gàmmu Taïba yi nga xam ne normalement mu ngi waroon a nekk le vingt sept euh, mars le vingt sept février bii ñu ne ci la waroon a nekk waaye comme mbas mi ni ngeen ko xamee euh, wàññeekuwut yoon i ñaareelam bi itim dafa gën a tasaaroo li muy lor gën a bëri te lislaam nekk diine joo xam ne diine juy sàmmanteeg bakkan la ak luy muccloo bakkan yi te yàlla tabaraka wa wax ne bu leen rey seen bopp lépp loo xam ne ni aju na ci wàlli mbas ak niñ ko war a dawee dëgg-dëgg defe naane message boobu tey ji war naa àgg ci kenn ku nekk ci Sénégal ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moo jàngale ne ku dégg mbas ci dëkk bu fa dem ku nekk ci dëkk tim mbas nekk fa bu fa génn pour wàllu ko keneen bi nga xamee ne nag tey jii gis nañ mbas mi lim gën a mën a tasaaroowe mooy mbooloo yi te gouvernement bi ci njiital euh, président Macky sal jël ay matukaay pour tënk nit ñi ay tënk-tënk yoo xam ne nii dana tax mbas mi ni muy tasaarooye gën a wàññeeku ni muy loree gën a wàññeeku ci kaw loolu la xalifa cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass gisee ne gàmm gi nga xam ne ñu ngi ko waroon def ci Taïba le 27 février muy gàmm Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu sëriñ bi nee na gàmm gi aj nañ ko ba jamono maye ko ba jamono méngoog daje yooyu loolu nag mu def mu koy def pour sàmmanteeg lépp loo xam ne ni jàmmi réew mi ci la nekk jàmmi askan wi ci la nekk teg ko tim ci ay bind yu wér ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci njàngaleeb alquran njàngaleeg Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ak tim jàppalanteeg ah njiiti réewam président Macky Sall ak ñëpp ñi nga xam ne nii ñu ngi jàppalanteeg moom ci xeex mbas mi ndax moom sëriñ bi lim gëm toujours dafay wax ne réew mi du ne président rek lañ ko war a bàyyee moom kenn ku nekk yaa war a bay sa waar boobaa nag lépp nekk ci jàmm dëgg la ñu ngi dimbali ko ñaan yàlla ñu ngi dimbali ko sarax waaye nañ dimbali ko tim bépp matukaay yi nga xam ne yàlla teg na ko ci suñ loxo ñu jël ko mooy sàmmanteeg euh, lépp li nga xam ne docteur yi ñu ngi koy euh, digale muy espace yi nga xam ne ni ñi war nañ di ko jël jël masque yi di jël gel yi waaye itam moytandiku bépp daje boo xam ne nii rawatina ci jamono ji nga xam ne ñu ngi ci état d'urgence lañ nekk te loolu yëpp du pour njëriñal benn nit waaye pour njëriñal umma bi yëpp la pour njëriñal bi yëpp la euh, pour tim jàngal nit ñi ñi xam dëgg-dëgg mbas mi euh, naka la toll ci lor ndax tey àddina yëpp amuñ ci benn pexe buñ ci am lu may espace yi euh, barrières yi jël masque yi di séentu vaccin yi nga xam ne ñi ngi koy tudd te dëkk yu bëri sax fi mu ne nii mënaguñ ko am ci kaw loolu la sëriñ bi waxee ne fomm nañ gàmmu gi ba beneen jëmmi jamono te ñu ngi mu ngi digal tim mbooleem muqaddam yi nga xam ne ñu ngi aju ci pays naa Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ñi sàmmanteeg lowaa yooyu ñi sàmmanteeg euh, matukaay yi nga xam ne euh, gouvernement bi jël na ko lépp pour xeex mbas mi ñi ànd ak ñoom ci xeex mbas mi bañ delluwaat ci Sénégal gi nga xam ne nii Sénégal yi jàmm la nekk delluwaat di nuyoo delluwaat di doqante delluwaat di gàmmu delluwaat di daje ci jàmm waaye te mu ngi dénk ñi nga xam ne ah baaxoo woon nañ ñëpp baaxoo woon ko di ci def ay ñaan ñaan yi ñu doon def kaamil yi ñu doon def ñu koy jàng ci kër yi ak booleeg sàmmanteeg rek tënku-tënku yi nga xam ne loolu la affaire bi laaj ndax tey feebar amul dara lu luñ ci gën a yaakaar lu may saraxe ak ñaan kon loolu dañ ko continuer pour ñaanal euh, euh, réew mi ñaanal askan bi ñaanal président ñaanal docteur yi nga xam ne ñi ngi euh, fanaan guddeeg bëccëg nelawatuñ amatuñ benn jot yàlla may leen tawfiq waaye ñaanal ñi nga xam ne tim yàlla moom na leen ci mbas mi yàlla jox leen yooli ku shahid ci yoonu yàlla ñi nga xam ne ñi ngi tëdd yàlla saafara leen ñi tëddut yàlla musal leen ci mbas mi ci gàttal daal loolu mooy message bi nga xam ne sëriñ bi mu ngi ko doon jàllale mu jëm ci mboolee mi euh, xeet bi jëm ci mboolee mi taalibe yi rawatina ñu ngi nuyu ñëpp di ndokkeel ñëpp ñu ngi nuyu suñu nijaay Cheikh Mouhamadul Munhamina mu ngi toog ak ñun di président Ansaru Din di eh, mudir maat alxaaji abdullahi di nuyu ay doomam cheikh ak xasan ak ñi nga xam ne ñu ngi fi teew ñëpp di ñaan yàlla yàlla boole ñu wattu wattul ñu suñu réew wattu mboolem alamul islami asalaamaaleykum wa rahmatullah